Ndem Dieng ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen euh, gis nañ euh, li nga xam ne moo jëm ci janoo ak taskatu xam nga xam ne seen coalition def na ko daanaka ay ponk yu bari waxtaanee ngeen ko ci wàll wi ni mel mais lu tax seen coalition bàyyi ba téeméeri fan yi jàll ngeen bëgg a communiquer ci wàll wi ni mel. merci beaucoup xam nga bi ñu yor coalition Diomaye Président mooy coalition bi ëpp taxawaay Sénégal. ñi ko composé mat au moins presque trois cent organisations muy ay parti ak des mouvements ginnaaw bi ñu defee cent jours ci ci kaw réew mi le président de la république def benn communication en tant que coalition politique nag ñu noon donc am na lu ñu wax sénégalais yi def une euh, du ma ko tuddee sax conférence de presse mais une communication boo xam ni dana permettre ñu revenir ci acte yi nga xam ne le président de la république posé na ko ci téeméeri fan yi ñu génn du du waxuñu waxu bilan parce que tollaguñu foofu parce que ci 100 jours mënoo cee évaluer mënoo cee mais mën nga ci wax ay acte mën nga ci mën nga ci analyser mën nga ci am objectivité bu la permettre nga xam ni kii fi ñu fi ñu fi ñu jëm baax na wala baaxul et ci loolu ñu am satisfaction bu am solo ci jéego yi nga xam ne président jël na ko dès que mu falu d'abord ci la bonne gouvernance rapport yi fi nekkoon yëpp mu génnewaat leen ba pare envoyé yeneen corps de contrôle ñu defaat yeneen yeneen enquête c'est très important à ce niveau là bi mu aussi mu fexe ba li nekk ay urgence mu jëm ci mbay mi mu yokkal leen au moins vingt milliards ba ñu am cent vingt milliards bi pour que béykat yi mën a am engrais mën a am aw jiw mën a béy dans des yu baax te te loolu mën a àgg ci ñoom loolu mu jël armée bi def ko contribution mu ànd ñoom jàppale leen mhm. mu jëlaat mesures yu am solo li nga xam ne moo jëm ci licence de pêche yi ku ne xam ne ñu bëri ci suñu xale yi nga xam ne ñoo nekk ci code bi ay nappkat lañ surtout ñuy def pêche artisanale ñu amoon ay difficulté parce que dafa bëri woon ay licence de presse ay bateau chinois ak union européenne wala russe yoo xam ne ni ñu doon nappe arrangé Sénégal tax na jën amatoon ba ñu bëri ñu jàpp ne moo tax ñu dem ci géej mu suspendre licence yooyu ba nga xam ni jamono ji pêcheurs yi euh, rafetlu nañu ko Sénégal mi koy sentir ci seen doxalin loolu yëpp ci gestion de transparence la yoo xam ne ak yoo xam ni ñëw na di ko doxal di ko posé mu ñëw ci foncier bi lépp lu fi jaaroon mu jàpp ne du yoon mu teg yenn commission pour ñu enquêter ci liggéey ci loolu mu Euh, fi nga xam ne fa la jëm Sénégal yi ci projet bi ñu yor dénk ko premier ministre mu war a coordonner l' action du l' action du gouvernement donc action yooyu yëpp président de la république jot ko posé ak yeneen ak yeneen yoo xam ni peut être cité wu ma leen yu am solo ñu en tant que coalition politique ñu jàpp ne aussi war nañ ci mën a communiquer communiquer ci en tant que action coalition politique mais communiquer aussi par rapport au rôle bu ñu am parce que suñu rôle dans la coalition sur le plan politique c'est accompagner l'action du gouvernement accompagner le président de la République ci confiance bi Sénégal yi am ci moom yaakaar bi Sénégal yi am ci moom projet bi mu yor porté ko ñu apporte suñu contribution te jàpp naa ne loolu rafet la démb ñëpp ko rafetlu l'ensemble des leaders de la coalition ñëw nañ fekke ko mu nekk ki nga xam ne mooy la nga xam ne ancien superviseur des élections mu ngi fa woon. Aminata Touré ki nekkoon mm-hmm. Aminata Touré. Mm-hmm. ki nekkoon directrice directeur de campagne du candidat Diomaye mu ngi fa woon Bamba Kirassi ah ak un l'ancien candidat Mamadou Lamine Diallo aussi nga xam ne relation yi am solo la am ak le président Ousmane Sonko et la coalition ñu invité mu ñëw ak ñeneen ñu invité woon peut-être dañoo am empêchement moo tax teewuñu fa ak leader yëpp ya fa nekkoon ñu wax ci situation bi fi ñu jaaragul fi ñu ci toll fi ñu jëm ak engagement ak taxawaay bu ñu war a mën a am. ba action bu gouvernement bi entreprendre ñu mën a gën a jàppale ko ci loolu. di nga ak man ñi wax ni ab euh, ñàkk a déggoo dafa am ci biir coalition bi ay Aïda Mbodj ak Mamadou Lamine Diante yow mi porte parole lu euh, euh, parti bi nga xam ne Aïda Mbodj moo ko jiite lan nga ñu ci mën a wax. ñàkk a déggoo mënu faa am d' abord man maa nga ca di suivre mosuma gis benn discussion divergence bu am ci barab ba nga xam ne fa la coalition bi daje di fa réunion di fa joxe point de am na nag information yi ma déggoon ci presse bi nit génn fay wax mais li am solo li ma bëgg a wax li xam ko mooy le président Ousmane Sonko mooy président de la coalition Diomaye président présidente Aïda Mbodj ñu nama ko présidente de la conférence des leaders mu jiite ko boo jiitee lu tolloog presque trois cent mouvements politiques et partis mu am mu am benn benn dayo bu toll noonu sax xel nangu na mu am ay coow politique loolu politique ak ak ay divergence ñoo ànd mën nañ bañ a bokk point de vue ci benn côté ci benn doxalin mais taxul ni coalition bi am na problème taxul ni am naa yow directement problème donc li ma xam te maîtriser ko mooy ñi ci coalition bi ñëpp ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne président Aïda Mbodj ni dafa difi ci partem pour tëddee njaaxaanaay mais nekk militant Pastef bi nga xam ne membre à part entier ci coalition Diomaye président donc yooyu du du loo xam ne am na solo parce que li ëpp solo rek mooy bi ñu wootee démb gis nga ni coalition ba parce que ñëpp a nga foon ñëpp même les ministre ñi newoon ci politique ñi nga xam ni am nañ ci responsabilité ñëw nañ fekk ko. d' accord waxtaanee fa amit defe naa ñëpp ko bokk suivre ko rafetlu ko. Mm, mm, d' accord objectif coalition bi mooy accompagner l' action du gouvernement à tous les niveaux à tout moment maintenant nag. ci biir pour parti politique sax mën na am divergence nit mën na am point de vue keneen ki mais li ëpp solo mooy amul benn acte majeur amul benn fait réel amul loo xam ne nit mën a teg loxo ñu lii problème la bu am ci coalition Diomaye président parce que dynamique boobu newuñ ci buñ ci nekkee sax bett Sénégalais yi parce que espoir bi ñu am yaakaar bi ñu am ci coalition Diomaye président ba fal ko dès le premier tour nga xam ne historiquement mosul am Sénégal ci une élection donnée benn opposant ñu arrivé au premier tour avec de malgré toutes les difficultés rencontrées sur le processus électoral malgré vices yëpp yi am ci fichier électoral bi donc adhésion populaire boobu am jàpp naa ni coalition Diomaye mesuré na ko. xam na ko et ci liggéey. pour que mu am njëriñ pour Sénégalais waa ñu ngi wax itam Ndem Dieng népotisme ci gouvernement bi Sophie Zenga Sy euh, mooy directrice bu yees bu agence pour la promotion et le développement de l'artisanat euh, lu tax ngeen bëgg a suivre rek euh, tant que régime bi weesu déjà Sophie si moom soxna si ñu dénk wàll ministère des affaires étrangères et l'intégration africaine moom mooy way juróom bu jigéen déjà lu ci sa xalaat. waaw sama xalaat mooy bu ñu comparee lu àndut gisuloo benn membre famille président de la république boo xam dañ ko impliqué ci gestion de l' état li amoon avec président Abdoulaye Wade ñu ko doon wax ak ne dafa jël doomam dugal ko ci wala su Macky Sall dafa jël ay rakkam wala ay gorom dugal leen ci famille bi gisagoo ko ci régime président Diomaye Faye Diom le président de la république amul benn lien de parenté ak ki nga xam ne mooy Sophie Sophie militante la bu am ay compétences avérées def ay preuves au Sénégal et à l'étranger muy une fierté nationale le fait que yaayam nekk ministre des affaires étrangères moom muy doomam ne ci beneen ñi beneen domaine beneen ministère tourisme ñu nome ko fa ne peut poser aucun problème bu fekkoon ne yaayam da koo jël nome ko ci biir ministère nga ne am na conflit d'intérêt de famille bu fekkoon ne yaayam moo am possibilité de nomination nga ne yaayam moo ko jël nome ko wala papam mais ki ko nommé du yaayam n'a pas les pouvoirs de nommer de de faire parce que faluñu ko papa ko président de la république rek moo ko am te président bi mu ko nommé nommé en tant que koo xam ne dañu bokk dara ci deret mais daf ko nommé parce que d' abord c' est boo xam ne am na compétence avérée ci domaine bi mu nekk def ci ay jéego donte membre Pastef la liggéey ci projet bi yàgg cee sonn c' est tout à fait normal que mu am compétence jox ko poste de responsabilité boobu donc népotisme ci affaire de famille ci pouvoir bi amu ko ci te jàpp mu dina ci am soo demoon nag ba gis le président de la république jël benn frère am wala benn sœur am wala benn gorom nommé ko poste de responsabilité boobu sax su la neexee mën nga def coloration entre lii ak lii. mais ki ñu nommé benn amul lu mu bokk président c'est une sénégalaise yaayam nommé ko papaam nommé wu ko amul benn influence bu ñu mën a am ci nomination sénégalais la comme tout le monde donc le fait nga nekk sénégalais nag. sa papa wala sa yaay am yeneen responsabilité teewul ngay sénégalais am droit yi ñëpp am war am say compétence bu ñu soxlaa dañuy utiliser liggéey loolu feneen. d'accord. loolu parce que nga nekk un fonctionnaire de l'état di liggéey état ak ñu ne ma le directeur d'une agence wala ci direction nationale ñoo yem ci travail pour l'état ak foo mën di nekk du sa lien de parenté moo tax nga nekk ko. mais cette situation de nationalité sénégalaise moo la indi moo tax nga nekk situation boobu. donc amul benn comparaison possible ci li am ci Sophie ni ñu ko ak le ak le président de la parce que le président de la république Sophie amul lenn lu ñu seq ci mbirum famille. bi ci des it papaam bi ñuy wax nekkul conseil à la primature kenn nommé wu ko wala gisaguma ko kenn gisagul euh, arrêté bu ñu ko nommé wala décret. conseil politique. par contre nag parti politique. toute famille bu leen neexee ñu bokk ci parti politique milité ca Jacques Habib Sy ku ne xam na ay compétence am au niveau national le conseil politique la woon pour Ousmane ci biir PASTEF mais li taxul mu nekk conseil politique conseiller au niveau de la primature même su ko defoon sax man dérangé wu ma si suñ bokk am na ci compétence yi parce que primature ak feneen bokkuñu le premier ministre am na ay pouvoir choisir ses conseillers comme le ministre am na ay possibilité choisir ses conseillers techniques comme le président de la République am na pouvoir jël ay décret nommer ay directeurs donc pouvoir yi bokkul la donc loolu am ci ñu ko bëgg a catégoriser demewut noonu. benn mhm. parce que pour mu demee noonu il faut nga mën a impliquer directement le président de la république alors que le président de la république amul benn lien de parenté ak ki nga xam ne nañ ko ki ñu nommé kan la d' abord ni c'est une a des compétences qui milite dans un parti qui a fait ses preuves au niveau national et international et qui a le mérite d'être dans un ministère boo xam ni ministre ba mu nekk ba ñu ko nommé bokkut ak ministre bi donte yaayam mu ngi ci beneen ministère nekk fa ñu président nommé ko. waaw loolu leer na ndem euh, jeexalee ko ci wàllum euh, euh, élection législative yi coalition Diomaye bi dèjà yéen a ngi koy waajal na ngeen sax nañ tas assemblée nationale bi ñu dem ci échéance ya ngir mën a am toogu bu dëgër bu ko defee li ngeen bëgg itam mu mën a jàll ci assemblée ba. effectivement xam nga Sénégalais ñoo opté pour benn changement. ci élection yi nga xam ne ci la ñu génn jox président de la république une majorité absolue dès le tour ay plus de cinquante quatre pour cent président de la république am projet am programme am jéego yu mu namm bëgg a bëgg a supprimer institution yu bëri yu nga xam ne jàpp nañ sa budget budgétivore bëgg a boole peut yeneen yi loolu yëpp yu ci bëri ay loi koy def moo am ñaari option soit da dem référendum soit nga dem élection législative anticipée pour nga 26 députés sur le nombre de députés yi nekk assemblée nationale donc xam nga ni déggewul sax le tiers donc loi boo fa mën di yóbbu te amuloo majorité député yi duñ la ko voteel donc réforme yi nga soxla nag pour le faire il faut que volonté bi Sénégal yi jël opter pour le changement volonté boobu ñu traduire ko au niveau de l'Assemblée nationale nga organiser des élections législatives souverainement ñiy gouverner defar seen liste ñiy opposé defar seen liste yi choisir bu Sénégalais yi confirmer le choix du président de la République jox ko une majorité à l'Assemblée nationale loolu nag mooy réforme yépp yi nga xam ne proposer nga ko ci sa projet sa programme mhm. andi ko ñu appliquer ko bu boobaa su ko deful nga am loo wax donc mais puisque foog nga am majorité pour def ko te egg nañ ci jamono joo xam ni war nañ mën a jublu ci pro tas assemblée programme élection la coalition bu apporter son soutien au président de la République sur le plan politique. d'accord di ci jox conseil di ko ci accompagner aussi di wax ak Sénégalais yi. donc ñu jàpp ni pour li ko Sénégalais yi dénk ñu mën ko doxal ni ñu ko soxlaa il faut mu am assemblée boo xam ne am nañ fa une majorité. mais pour refléter la volonté des Sénégalais. Mm. mais ñu fa nekk aussi nekk des députés du peuple sénégalais. parce que c'est le peuple qui a choisi le peuple pour défendre projet que le jeex na am na solo Ndéme Dieng ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ni nga nangoo tontu suñuy laaj. merci beaucoup fàttali ni yow yaay porte parole bu parti alliance ànd saxal liggéey bu Aïda Mbodj bokk ngeen itam ci biir coalition Diomaye président. merci beaucoup.